Macky Sall moo jéggalu Macky Sall moo tuub ci li mu def Ousmane Sonko Macky Sall moo dellu ginnaaw Macky Sall moo xam ni dañ ko nax Macky Sall moo dem ba xam ni dañ koo fen Macky Sall moo dem ba xam ni bu fi forcé sénégalais dina leen rey te bu boobaa armée bu ko jëlee dëkk bi tàkk Sonko sauvé toutes ces âmes là tous ces âmes yu waroon dee ci coup d'état bi ñëpp ñu nanoon rey bu ko armée bi jëlee Sonko sauvé leen billahi wallahi Sonko xeluma lem waaye nit bu jara sant la du ma géwélam aw ma complexe ci moom waaye nit bu ma jox cër la Sonko nit gënu ko Sonko nit bu am diina la nit bu baax a ngi noonu nit bu jara jàpp a ngi noonu nit bu doyloo ngi noonu nit bu dara fëqul ay bëtam a ngi noonu nit bu nguur yóbbaalewul fëqul bi ngi noonu Sonko nit bu nit boo xam ne la da ngeen ko war a ormal màggal ko ci réew mii defal ko ay monument sant ko gërëm ko ci nu mu sauver le Sénégal Sonko a sauvé le Sénégal Sonko a sauvé le Sénégal encore une fois man sénégalais yi ñoom a ñor ñoom rek laa bëgg dama leen di wax ni Sonko a sauvé ce pays kenn amul fayam moo xañ coup d'état ba moo xañ nit yi deeya moo xañ troisième mandat lépp Sonko la te dara fëq ko bu ko neexoon bu fekkoon protocole daa am bu boobaa moom moom ci boppam mooy doon président bu boobaa bu nangoon lu ko Macky Sall doon sant kon ba tey jii moo fi toog mais waa ji ku gore la waa ji jàmbaar fàq tëdd la waa ji nitu yàlla dëgg la Sonko nitu yàlla dëgg a ngi noonu jàmbaar fàq tëdd lu ko waay waxal da nga koo fenal ci lu ñaaw da nga koo fenal da nga koo sosal wallahi Sonko gisaguma ku ko gën a gore ci réew mi dafa wootewul rek mais bu woote woon addiya dina toog ay milliards di ko fekk benn kenn gënu ko màgg jàmbaar fàq te dëgg noonu dañ ko umpale nag waaye Sonko ku sénégalais yi war a sant la ku sénégalais yi war a gërëm la lii de moo am ñuy wax waxi protocole protocole protocole protocole kenn amul fitu avancé ci protocole bi nga ana protocole bi man maa leen di xaar wax ji yëpp doo nga dégg Ousmane Yara dëggal ci ay ñaareel ñaareelu Sonko ndeysaan nga xam ne kooku kooku nu mu <laughs> kooku nu maano maanoo ñaareelu Sonko boobu ak a maanu ndeysaan fa la ñu bàyyi ba mu ñëwee indi añ bi ñuy wax ak Sonko fa lañu moom moo présenté Ousmane Yara ne kii Ousmane Yara la tudd pour Sonko mun ko nangu Sonko dafa bañoon daf na daf na Ousmane Yara xamuma la ku la yan ku ku la yónni xamuma la ñaareel bi moo ko ne kii Ousmane Yara moo ko présenté Ousmane Yara liggéey ci liggéey gu am solo dox diggante bi pour Macky Sall forcé wul nag waxut fenelul Sonko waxulu ko lu ñaaw daf daf Macky Sall gëstul lii kii dañ ko sosal boo ko gëstoo di nga xam ni Sonko mii dañ koo tiiñal mais laalewul ci lii sa gars yi dañuy tatone te dinañ la fi yàqal te bu bu defoo ndànk di nga fi génn génn bu ñaaw xoolal nu mu gën a rafetee comme dang ko koo tooñ te nangu ko ko demal nga jéggalu te yàlla tax kii yor na xol goo xam ni mun na laa sax jéggal li ko tooñ ci ni ko tiiñal takkal ko tuumaal ko tëj foofu yëpp barricade ko dóor ko empoisonné ko poisonné ko lu nga ko def lépp mun na la baal une seule condition boo ko jéggaloo mu jéggal wallahi billahi Macky Sall jéggalu na Ousmane Sonko moo tax Ousmane ne jéggal naa la ci xol bu sedd guy moom nay leer nag Macky Sall tooñ ñu mu tooñ Ousmane Sonko Ousmane Yara c'est un ami des présidents africains c'est l'ami des présidents Yara nit bo xamne day djubale day djubale di dajale voilà président africain 90% yeb ay xaritam lañ Guinée Burkina Malek voilà c'est un malien président Niger président Nigéria xaritou président yi xaritou ablay wad la xaritou Macky Sall la xaritou mom moom day day djubale président yi malien malien d'origine malienne donc mais Sonko xamu ko woon waa léegi mbir yi demee ay nit fi protocol protocole protocole dara mais du ko non ci Je dama maîtriser mais du ko mais tous tous la ni la ni, à 200 ñi naan gisante nañ avant élection yi ñoo mën a fen avant élection nan lañ gisante Sonko pare dugg ci àll bi teg ko tambour bata bu mu génnee la dem ci hôtel bi waa Pastef fay ñu def conférence azalaay pare fa teg ko ci àll bi Sonko nekk ci àll bi di fanaan ci oto yi reyante ba ñu gañee ñu naan ay avant kii gisante woon nañ ak nang fen rek fenn rek fen rek ñoom ñëpp fenn rek moo tax ñoom ñëpp daw nañ Omar Sow nee na bàyyi na daw na Amadou Ba nee naa leen Amadou Ba de leen di jaxase Amadou Ba amul fitu wax moo tax ñoom ñëpp comprendre nañ muut lañ def ñoom ñëpp xamuñu ci dara léegi nag lu ma leen wax moom laa wax leader bii na leen jamono jii génne leen dossiers yi fi nekk ngeen topp leen cool yi day jeex bu ñu toogee ba léegi ay ñoom jéggi jóob nekk di wax di menacer di nappaate koo ci koo woo rek mu def conférence de presse mais ku ci duggoon wala mu def vidéo ku ci duggoon génnoo wax ji jeex mais gars yi ñoo leen bàyyi nii am na dossier yu fa nekk ba pare am na dossier yoo xam ne cour cour euh, IGE cour des comptes def na lépp ba tëj ko mi ngi ci internet bi waaw mais nañ leen commencé topp reddition des comptes poursuivi kon coow la dootul bëri loolu laa wax léegi waa ji ma woo fii naa ma gis nga vidéo xaw ma lan jéegi joob naa na ma ne ko <laughs> gis naa ko mais ñii bu ñu amee fitu wax yéen la ñun li ñu waroon def yëpp def nañ ko li ñu waroon def yëpp def nañ ko waaw dama leen di xamal ni li ñuy wax ni c'est faux amul benn protocole protocole bu day am dëgg dëgg dëgg pour dem ay président duñ ma ci boole duñ ma ci boole de ñun ñoo jog réew mi bëgg a tàkk Macky Sall bëgg taxaw armée bi bëgg a génn ñoom Sonko bëgg a def ci kaso yi ñu jóg formé dem ci Macky Sall na ko jéemal jàng kii gars yi dañuy fen gars yi nangam ak nangam noonu lañ ko doxee di ko tëgg di ko liggéey di ko liggéey ba Macky Sall bàyyi ba Macky Sall arrière ba Macky Sall yàbbi lu mu sexoon ba Macky Sall jéggalu ba Macky Sall dugal amnistie bi génn gaaya gars yi dem ci ay élection mu protéger élection yi ñu duma leen duma yi set wecc wax ji jeex na tàkk nii la mbiri demee doo gis kenn ku génn teg fi leneen kenn doo ko fi gis et je défie quiconque xamuñu dara ci mbiri ni la mbiri Songo sonko demul dialogue sonko nangul arrière élection sonko négocier wul pour ñëwaat duggu duggu ci processus électoral bi sonko demul ci élection yi kon sonko bu demb moy bu tay sonko bu taxawon ci jomay numéro 111 ba né bi la bi la bi la wax nañ ba dé def né bi la motax ma leen sonko dafa bop bu maté du bàyyi bi la bi la sonko bobu la taxaw foofu la taxaw ba buñ koy génne ci 111 ba la japp japp ci 111 ba dem ci def campagne nek ci 111 bi ba 111 ba dara amatu dara jeex tak, tak. li da fi am duñ la wax leneen nak